lamba fab jang ko gel maga gel war we bata jahado e, e mot lamba fab jang ko gel maga gel war we bata jahado e Gilwar we batanje Imot le me pam yang ko Gilwanga Gilwar we batanje Gilwanga gelorre badan Euh, mbokki Kaarang ñu leen di nuyu beneen yoon euh, di teewaat ak yéen fi nga xamante ni moom mooy arène euh, bu Kaarang arène bi nag ñu ngi jëngante tey si nga xamante ni moom mooy drapeau raw gàddu bi bu ñu si drapeau raw gàddu bi rek ñu ngi war a jëm si drapeau poids léger bi nga xamante ni moom la fii si Kaarang di nga premier combat gi nag ngi dox si diggante ki nga xamante ni moom mooy Ano Seras ak ki nga xamante ne moom mooy Yalo Mag combat boobu moo desoon ni ki démb si drapeau bi. léegi fu mu toll nii war nañ koo commencé premier combat bi moo nekk noonu di leen di wax rek naan nag euh, fas yéene nañoo euh, jël li nga xamante ni moom mooy lamb Kaarang yëpp jagleel leen ko yéen mbokk amateuru Kaarang yéen ñi nga xam ne am ngeen possibilité pour ñëw ñu ngi leen di woo pour ngeen ñëw mais ñi nga xamante amuñ possibilité pour ñëw aussi ñu leen wax rek naan toog leen ngeen xaar ñu fi nga xamante moom mooy suñu TV rek ñu daal di leen indil li nga xamante ni moom mooy lamb ji nga xamante moom mooy bu kaarang kon bu ko defee rek ñu daal di si li nga xamante ni moom mooy jàpp yi ñu daal di seetaan kon bisimilah waay di nuyu mbër ak jabam di nuyu supporter ak animateur muy woykat yi ak tëggkat yi di nuyu organisateurs yi di nuyu waa de lutte bi commencé woon nañ drapeau raw gàddu bi démb ñu bëri woon ba toll ci quart de mu desoon ci mbër yi yàlla maak ano seras Babylone Baba Seeku Sum Wexxat Daara ji ak campement Mbelane kon ñu fas yéene dugg ci combat yi bëri raw gàddu bi jeex ñu dugg ci poids léger bi bëre ko mu jeex dugg ci poids bi suba bëre ko mu jeex xaar ba déwén. premier combat yàlla maak annoncé ci géew bi yàlla maak annoncé raas premier combat animation. buñ kooku mooy annoncé raas te loo ko bale moom itamit mu ngi jonkoon noonu yàlla maak yàlla maak moo jonkoon noonu moom itamit nekk si li nga xamante moom mooy jumukaayam di préparé wu mooy loolu gaa yi loolu arwet baa ngi wax ak ñaari mbër yi nee na laal yaram bi suuf ndax day bañ na rami waaw waaw arbitre ngi ci diggante ñaari mbër yi waaw waaw mbokk yi ñu fàttali leen rek ki nga xamante ne moom mooy tambour major bi di Mor Ngom nekk ak ki nga xamante moom mooy Ndeye Fatou Ngom ba léegi rek ay eh, waaw ano seeraas am na lu muy jàt arbitre souffle na si diggante ano seeraas ak ki nga xamante ni moom mooy Yalo Mack anoo ah, seeraas bu kaarang ak yaalo maak waaw waaw mbokk yi ano ah, seeraas moo ngem moo ngemu Lagos wi yaalo maak jox ñu ginnaaw arbitre ngi wax ak ñoom a ah, mel ni am na lu xew seen diggante ñoom ñaar arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi ah waaw Ando Seras Ando Seras ak Yalo Yalo Mag Ando Seras Yalo Mag waaw waaw lamb ji neex na ala daw me na bëre dina feeñ si diggante ñaari mbër yi jàppante nañu jàppante nañu ano seras génn na yaalo maag jàppaat na ano seras ano seras ngi wun ngeem arbi suuf le na arbi suuf le na Ono Seras arbi suuf la waat diggante ñaari mbër yi nañu jàppante nañu ano seras yalo maak ano seras yalo maak yalo maak njel ano seras ano seras rasuna songo dañu ko a lamb neex na yalo maak dem na jëli ko ano seras rasuna attention yalo maak yalo maak njel ano seras rasuna ko waaw waaw bëre dina feeñ ci ñaari mbër yi ano seras maak ano seras yalo mag ano seras yalo mag combat bi diggante ano seras ak yalo mag ano seras yaalo maak yaalo maak daw na jël na ko ano seras ano bañ na ano seras bañ na yaalo maak am na ngembu ano seras ano seras jàpp na am na ngembu aa ah, bëre feeñ ano Seras Yalo Maga bëre dana feeñ si diggante ñaari mbër yi bëre feeñ na fa ano Seras Yalo Mag waaw waaw arbitre souffle na ñaari mbër yi ñementaan nañu ñaari mbër yi ñemewante nañu diggante Ano Seras ak Yalo Maga waaw waaw dem bu ñëw doon tëkkuwante sa dëgg-dëgg tekkuwante nag moom yaakaar naa ne bu arbitre boole seen bu arbitre jógee seen diggante war na ñoo na a wane lu leer waaye ñoo ngi bëre ba léegi bañ leen fa kastalu waaw waaw ano seras yàlla maag ano di xale bu am jom di doomu Kaarang na moom mbir mi daal da koo jël bu ko koo mu des Kaarang ano seras yalo mak wa wal ano seras yalo mak ano seras ak yalo mak ano seras yalo am na ngembo ano seras yalo mak am na ngembo ano seras ano seras jàpp na si ngembo li année sera sit am na ngeen bu leeru mag kon mel na ni koro combat bi métti na combat bi métti na waaye ñaari mbëri dañoo ñeme anta woon lool te ko moo tax premier tirage boole leen ano ah seras yalo mag ano ah Seras Yalo Mak waaw kay a ngi waxaat ak ñaari mbër yi diggante Ano Seras ak Yalo Mag arbitre soufflé na Ano Seras a ngi jat waaye Yalo Mag a ngi ne tekk di ko xool waaw waaw Ano Seras Yalo Mag Ano Seras Yalo Mag yàlla maag moo ñu jox ginnaaw ano seeraas ngemboo ngembul li nga xam mooy ngembul Lagos yi yàlla maag dem na jël tànk alo seeraas waaye ano seeraas rasuna ñaari mbëri ñemente nañu combat bi neex na diggante Ano Seras Yalo Mak ah ya Ano Seras jël na tànk Yalo Mak Ano Seras Ano Seras daan na Yalo Mak Ano Seras daan na Yalo Mak Ano Seras daan na Yalo Mak ah non Seras daan na yàlla màgg ah bu set wecc ah non moo daan yàlla màgg jël bu amul benn wérante baal ma dem jële ano Seras ano Seras allo Seras. waaw. allo Seras li ma waxoon démb rek. waaw dëggantaan. dëgg ja ñoo ñoo gën a kontaan. dëgg ju wér waaw maa ngi mbëruk dëkk bi fii. maa maa leen gën a kontaan nag. mais balaa sama xol di sedd nag. ma jël drapeau bi mu des si quoi. incha allah day am. nee woon na démb gars yi maa leen mun. tey seetal tey la bëre bi demul def ma woon dara. waaw Serigne Touba jërëjëf Ano Seras loolu baax na kon euh, kooku mooy ki nga xam ne moo nekkoon Ano Seras rek dégg ngeen ko muy doomu Kaarang ak bërëb yu rëy mu def. kon gaañ moom arbitre si diggante campement Mbelane ak ki nga xamante ni moom mooy daara ji arbitre soufflé na campement Mbelane a ngi jat daara ji wan mu ngi mu jat di arrière waaye campement Mbelane a ne tekk di ko déglu waaw yaa bore dina la feeñ diggante campement Mbelane ak ki nga xam ne mooy daara ji campement Mbelane nag moom mooy eh, yoro eh, ngemb li nga xam ne mooy ngemb noir blanc boobu mooy bu ñuul lu weex li daara ji moom moo ngemb lu weex li diggante campement Mbelane ak ki nga xamante ni moom mooy daara ji ñaari mbër yaa ngi ne tekk ah campement Mbelane dafa mel ni mbëru expérience la waaye daara ji tamit dafa mel ni xale bu taxaw la moom it waaw waaw ñu ngi lewaatoo daara ji talal na ko loxo campement Mbelane jëlu ko waaw aj na loxo bi waaw aj na ko ki nga xamee ne moom mooy arbitre combat bi di Salif Sour lewaatoo bi gaaw na seen lewaatoo ba gaaw na ñaari mbëri ay mbër kaamil lañ campement Mbelane moom seetaan na ay bërëm ay yoon yoon waaye kum jàppantel ku ne bëre dina feeñ waaw waaw lewaatoo bi gaaw na trop diggante campement ak ki nga xamante ni moom mooy daara ji daara ji de xanaa war naa bëri taalibe campement Mbelane moom tubaab bi dañ koy jege dafa mel ni nasaraan bi ki nga xamante ni mooy yaram bi seen ndawaatoo ba gaaw na ki ñu jox ginnaaw noonu nag moo nekkoon euh, ki nga xamante ni moom mooy daara ji Kampama Mbelane nangul taxaw benn place mu ngi wor ki nga xam moom mooy daara ji dagg nañ la waatoo wi nañ la waatoo bi diggante campement Mbelane ak ki nga xamante ni moom mooy daara ji daara ji ak campement Mbelane nag ñoom ñaar ñu ngi jëwaatoo Serigne lewaatoom goow daara ji campement Mbelane waaw neex waaye ba léegi nag jàppanteeku ñu moo tax borom mu nagul feeñ diggante campement Mbelane ak ki nga xam ne moom mooy daara ji ah campement Mbelane daara na tànk bu ay ah, daara ji bañ na daara bañ na campement Mbelane demoon na je yéem tànk daara ji waaye daara ji rasu Kampama Mbelane mel ni dugg waaye rasu na dafa mel ni dafa déglu daara ji damul ne ko xaaral ma meb ñëw fekk si la. diggante daara ji ak campement Mbelane arbitre doon na ñaari mbër yi arbitre na ba léegi diggante campement Mbelane ak ki nga xam ne moom mooy daara ji Gampa Mambelaan ak Daara Ji ñii si diggante Gampa Mambelaan jàppante nañu Gampa Mambelaan Daara Ji nañu jàppante nañu songo nañ songom koow waaw waaw gampa ma mbelaan ak daara ji daara ji dugal na loxo si ni la nga moom mooy ngemu tànk ma mbelaan gampa bañ na campement Mbelane bañ na diggante campement Mbelane waaw waaw abi suuf na si diggante campement Mbelane ak daara ji campement Mbelane daara ji nañu jàppante nañu campement Mbelane daara ji campement Mbelane ah, mu ngi bëgg a dem waaye campement Mbelane bañ na de ah daara ji mel ni mu ngi bëgg a mépp daara ngi bëgg a waaye campement Mbelane mu ngi bañ campement Mbelane bañ na ah campement Mbelane daara ji campement Mbelane daara feeñ na campement Mbelane daara ji feeñ na daara ji mi ngi yëkkati campement Mbelane oh doole doxul jaamu doole doxul jaamu daara ji daan na campement Mbelane. jël ko faj maa xam ne maa ko muñ doole chaque jour ma xëyee suuf laa suñu buntu kër fop suuf wante làmb noonu la lu ma si làmb bi noonu laa koy ndem man ngool ni xëy da daw daan kam ɓaan koole te wannan ñandam da fullonin fayo an ɓe ni gon mbaɗ men gon fe an karankol iɓe mbaɗo foñan ane li mu wax noonu wax na ko si olof wax ko si ki nga xamante ni moom mooy soose lakkat la waaye nag noonu rek lay mën a demee kon gars yi yaakaar naa ne tey dara du des tey daal combat yu neex bo bu set wecc affaire yi fi lay xewee nag saa su nekk fii nga xam ne mooy terrain municipal bu Kaarang foofu lay amee kon gars yi ñu ñëwaat ak yéen li nga xamante ni moom mooy tuuti gars yi ñu daal di dem li nga xamante ni moom mooy tambour majeur bi di ki nga xam mooy Mor Ngom ak ki nga xamante ni moom mooy ki koy wéy di euh, Faatu Ngom kon noonu lay demee saa su nekk gars ñu dem. Thank you. a ñi nga xam ne mooy zizam yi arbitre souffle na diggante ki nga xam mooy Baba Ndaw ak Babylone Baba Ndaw ak Babylone Babylone moo ñu jox ginnaaw noonu moo ngem moo ngem lu am lu weex li Baba Ndaw mooy ki nga xam moo ngem moo ngem Lagos bi ah waaw waaw ano ki nga xamante ne nii moom mooy Babylone attention Babylone daan na Baba Ndew daan na Babylone ah, ah Babylone moo daan Baba Ndew astaghfirullah Babilone soxla woon nañ la Babilone waaw nan ki nga xam ne mooy Papa Ndew waaw ko mu ñu a ma nox ko daan ko xam nga ay booy lañ ba nga jaay li ñu fu mag ah, ah Babilone ah. fàttali waa Kaar yàlla rek yal ki nga xam ne moom mooy Babilone mu nekk doomu Kaar ki nga xamante moom mooy wexkat wexkat nag ñoom eh, mu ngi am amal eh, ki nga xamante ni mooy seexu sum ñoom ñaar yëpp ay doomu kaarang lañ wexkat ak seexu sum arbitre baa ngi leen di xool arbitre baa ngi leen di xool arbitre bi xool na leen ba pare diggante ki nga xam ne mooy seexu sum ak wexkat laqat seeku suuf laqat seeku suuf arbitre baa ngi wax ak ñoom arbitre bi dafa mel ni joxe nañ avertissement arbitre baa ngi wax ak ñoom ba léegi ki arbitre combat bi di Saliou Sour mu ngi wax ak ñi nga xam ne moom mooy Zizi waaw waaw arbitre suuf la na ki nga xamee ne moom mooy Seeku Sum moo ñu jox ginnaaw noonu weexat moom mooy ki nga xamante ni moom moo taxawee taxawaayale Sum moom moo ñu jox ginnaaw diggante Seeku Sung ak Wexxat Wexxat am na lum sànni si ginnaaw Seeku Sung waaw waaw waaw Wexxat Seeku Sung ndeysaan ñoom ñaar yëpp di doomu Karang waaye lamb waaye lamb boole na leen lamb boole na ñaari mbër yooyu ñoo ñaar yëpp doomu Kaolack lañu waaye bokkuñu écurie waxat seeko sum waxat seeko sum waxat waxat sum ngi lewaatoo lewaatoo bi gaaw na diggante Wexkat ak Seeku Sum yaa ah, lewaatoo dagg nañ lewaatoo bi na ngeen tekkati xoolante dagg nañ lewaatoo bi ñoom ñaar ku ne ngay tekkati xool ah attention ñu ngi damante baaram weex kat seeku sum combat bi neex na diggante weex kat alak seeku sum ñaari mbër yi nañu waa seexu sum daw na jël tànk weexkat waaye weexkat rasu na seeku sum jël na tànk wexxat bi mu rasu seeku sum mu ngi mépp mel ni ku bëgg a dem ah, waaw lewaatoo ba gaaw na wexxat jël na tànk seeku sum waaye seeku sum mu ngi bañ seeku sum a ngi bañ wexxat jël na tànk seeku sum wexxat jël na tànk seeku sum waaye seeku sum mu ngi bañ wexxat jël na tànk seeku sum seeku sum a ngi ba oo doole doxul jàmm wexxat daan na seeku sum wexxat daan na ki nga xam ne mooy seeku sum jël bu leer daan na seeku wexxat daan na seeku sum waaye wexxat mu ngi tekki li nga xamante moom mooy cumukaayam wexxat daan na ki nga xam ne mooy seeku sum wexxat waaw wexxat ñu lay laaj nga xam ne moom nga daanee seeku sum seeku sum non tànk bi laa jàpp rek mu toog waaw doole eh. doxul jàmm ah, da nga eh, ni ma ko màggee noonu laa ko bay eh, allah dégg kon kooku mooy ki nga xamante moom mooy wexxat da ngeen rek li nga xam ne moom la daanee seeko su mu noonu la doon expliqué ne na nag dafa liggéey liggéey da dafa am solo si loo xam moom mooy mbër mbër da ngay préparé wu ki nga xam ne mooy wexxat pare na loolu waaw kon gars yi bu ko defee rek annonce Seras annonce Seras nag ki nga xamante ni moom mooy doomu Kaarang ak ki nga xam ne moom mooy Daara ji annonce Seras Daara ji annonce Seras Daara ji. arbitre baa ngi woo ñaari mbër diggante Ano Seras ak ki nga xam ne moom mooy daara ji Ano Seras a ngi noonu di ñëw Ano Seras Ano daara ji Seras daara ji arbitre waa ngi wax ak mbër yi Maro Seras dara ci ku nekk da nga taw di jat ano ñu ngi lewaatoo ano seras daara ji waaw waaw loxo jàppante loxo jàppante loxo ano seras daara ji daara ji moo ñu jox ginnaaw noonu moo ngeboo ngemu lu weex li ano seras daara ji ano seras daara ji ano seras ngeboo ngemu Lagos daara ji moo ngeboo ngemu lu weex li muy ñaari xale yu mën a bëre xale ñaari xale yu mën a bëre waaw waaw diggante ano seras darañi ñuy daara ji jaw no japi ko nga ano bañ na waaw waaw yante diggante annonceur as daara ji annonceur as daw na jël tànk daara ji daara ji bañ na annonceur as daw na jël tànk daara ji daara ji bañ na annonceur as daan na daara ji annonceur as daan na daara ji annonceur as daan na daara ji waaw waaw yow la annonceur as daara ji ano Seras mooy daan na xale daan yu rëy ano Seras daan waaw waaw gis ngeen de li ma la waxoon ba tey dañagul de final rek gars yi maa ndax bëre man dama doon xale seen biir tax leen bëre mais dama bëgg dama bëgg à travers télé bi nga wax waa Kaarang ñu jàppale doomu Kaarang parce ñun suñu génnee mbëri seen waa dëkk yi dañuy jàppale mais ñun waa Kaarang dañuy seetaan dañu seetaan trop te waroon ñoo seetaan dañ ñu jàppale ngir yàlla tey ñun kaaraan moo tax ñuy bëre fu ñu gën a turu kaaraan lañ fa yóbbu te ñu amatoon dara li mooy suñu liggéey ñu jàppale maa ngi ñaan loolu waa kaaraan. jërëjëf ok kontaan nañ si yow baax a baax Ado Seras dégg ngeen li nga xam moom la wax waa waqat waqat nag jox nañ ko victoire euh, ki nga xamante ne moom la dajaloon nag kooku ñëwuñ ñu daal di jox waqat ki nga xam ne moom mooy victoire bi waaw waaw kon waqat bërëb wax wax nag dafa mel ni ki nga xamante ne moom mooy adversaire am dafa daw. mbokk Kaaranga ñu ngi at si nga xamante ni moom mooy final raw gàddu bi rek drapeau bi nga xam moom lañ doon bëre démb ni ñu ko yeggali tey nag final raw gàddu bi nag ñu si diggante ki nga xamante ni moom mooy uh, waxkat ak ki nga xamante ni moom mooy uh, annonceras lamb ji yaakaar naa ne day faatu woy na ko ah Mor teg na ko xale yi seen yaram yi tàng nañ waaw waaw. xale yi seen yaram tàng nañ ki nga xam mooy caporal la ak ki nga xam mooy olympique alfu seeni aussi mu ngi noonu xale yi seen yaram tàng nañ waaw waaw lamb ji neex na ala daw da waaw waaw kooku mooy olympique olympique mooy bàkku noonu olympique mooy tuus noonu moo moo yem borom bu mu verte bi kooku mooy olympique mooy tuus tuus yu noonu mooy borom bu mu verte boobu ngeen di gis numéro 23 bi muy olympique. dafa mel ni nag dafay nekk noonu day doog a yegsi day doog a yegsi kooku mooy olympique waaw olympique moom mooy tus tusire yooyu waaw waaw waaw ay seen yaram tàng nañ waaw waaw seen yaram nañ waaye waaw waaw tey loolu lamb ji neex na lamb ji ala daw me na ñu ngi war a préparer li nga xam ne moom mooy finalu li nga xam ne moom mooy waqat waqat nag mu ngi finalu ak ki nga xam ne mooy annonce race waaw waaye woy yi yaakaar naa ne neex lool waaw yaramu gaay tàng nañ regi cës res waaw waaw a ngoog waay waay olympique waay olympique mooy tus tusi re yooyu olympique nag dafa mel ni dafa tukki woon daa génnoon dëkk bi nag daa ngi si mu rëy waay yaram bi daa tàng kooku mooy olympique waay waaw waaw mooy lambu kaarang gis fi gaay waay ko yu neex olympique olympique mooy tous tous yooyu waaw waaw olympique kooku mooy olympique xam waaw kon euh, ñi nga xamante ne moom mooy finalu raw gàddu bi nag euh, finalu raw gàddu bi nag mu ngi dox si diggante ki nga xamante ni moom mooy ano seras ak ki nga xamante ni moom mooy euh, wexxat ñu war a jàkkaarloo ki nga xamante ni nag mooy wexxat kon gars yi arbitre ngi xool ñi nga xamante ni moom mooy ñaari mbëri mbokki Kaarang ñaari doomi Kaarang ya ñoo daje final diggante Ano Seras ak ki nga xamante ni moom mooy Wexxat euh, ñaari mbër yi ñeme ante wañ nañ torop waaw arbitre combat bi nag Saliou Sour la mu ngi noonu gars yi final diggante Ano Seras ak ki nga xamante ni moom mooy Wekhat ñoom ñaar yëpp di Karang Ano Seras Wekhat arbitre souffle na Wekhat mu ngi jat Ano Seras for na tànk ya waaw Xaati ano seeraas wax Xaati ano seeraas wax Xaati final bi a ngi dox ci diggante ki nga xamante moom mooy ano seeraas ak ki nga xamante moom mooy wex weexaat annonce seeraas combat bi bare woon na tension waaye terewul lépp si bëre la neexal làmb rek waaye ñoom ñaar buñ fàtte ne ay doomu Kaarang lañ ay naataango lañ kenn ku nekk bu xëyee suba jàkkaarloog sa morom kon nag gaa diggante Ano Seras ak ki nga moom mooy Wexxat diggante Wexxat ak Ano Seras Ano Seras jox ñu ginnaaw noonu ki nga xam ne moo ngeem moo ngeem lu weex lu Ano Seras moo ngeem moo ngeem bu Lagos yi ñu ngi lewaatoo gi demoon na am am ay tension diggante ano seeraas we xat ñaari mbër yi ñemante nañu ñoom ñaar yëpp di doomi kaarang kon ndam li kaarang waaw waaw loolu mooy finalu raw gàddu bi ano seeraas takk na ki nga xam ne mooy wexxat waaw waaw takkaat na ko le ba léegi ano seeraas ano seeraas takk na wexxat ano seeraas takk na wexxat ano seeraas wexxat final bi neex na final bi neex na ano seeraas wexxat final bi neex na ano seeraas wexxat ano seras we xat ano seras we xat ano seras we xat ano seras we xat ah, bi neex na gaay diggante ano seras we xat final bi neex na trop bëre feeñ ci diggante ñaari mbër yi annoncé raas wexxati annoncé raas wexxati waaw waaw gaa ñaari xale yu mën a bëre waaye ñaari xale yu mën a bëre waaye diggante annoncé raas wexxati waaw waaw bërëb feeñ na waay bërëb feeñ si diggante ñaari mbër yi waay ñoom ñaar képp ku ne kenn ku nekk si moom liggéey na kenn ku nekk rek liggéey na tey nag liggéey rek moom ngay wone diggante Ano Seras ak ki nga xamante ni moom mooy wexxat ñoom ñaar yëpp di doomi kaarang waaw ñu ngi lewaato lewaato bi gaaw na lewaato bi gaaw na ano seras jël na ano seras jël na wexxat ano seras jël na wexxat waaw weqat daan na anoo seeraas jël bu leer nañ weqat daan na anoo seeraas jël bu set wecc weqat daan na anoo seeraas waxatana ano seras waxatana ano seras may ñu ko waxe way may ñu ko may leen ñu ko waxe way may leen ñu ko waxe Thierno waxkat dañoo bëggoon nga wax ñu ni nga xamante moom nga bëre ak ki nga xam ne moom nga wax ñu nga xamante muy def jaaru si yoon affaire bi lamb la affaire bi amul dóor affaire bi lamb teg si yoon ñu bëre ko lu may dóoree dama koy jaay ne maa ko ëpp xale bu ndaw la judoogul waaw mbokki Kaarang loolu mooy nga xamante ni moom moo doxoon euh, si diggante nga xamante moom mooy ñaari mbër yooyu nag lamb ji lii mooy li moo fi doxoon tey rek euh, suñu TV àndoon ak yéen si li nga xam ne moom mooy lamb bu Kaarang rek euh, di leen di wax naan finalu tey jàll nag jàmm ñu ngi ñëwaat ak yéen si li nga ne moom mooy lamb suba bi bu subaa jàmm indi li nga ne moom mooy animation bi Mor Ngom la ki nga xam ne moom mooy Ndeye Fatou Ngom moom moo koy woy kon gaay bu ko defee ba subaa jàmm gaay ñu tàggatoo ak yéen asalaamaaleykum mbokki Kaaranga ñu ngi leen di nuyu. li nga xamante moom mooy dernier jour bi tey la woon ñu fas yéene dikk ak yéen rek dal di leen jëlal li nga xamante ni moom mooy programme boobu te yaakaar naa ne e, dugg si bi métti na lool porte bi dafa xat ba tellement que mooy loolu. léegi nag am naa fi benn consultant boo xamante ni nii mooy. mbër moom nga ngeen doon dagg ñu koy wax ah, Black Black nag mu ngi ànd ak man tey li nga xamante ni moom mooy lamb mooy sama consultant Black su ko defee rek naa leen ko présenté mu dugg si moom itamit wax leen ah, li nga xamante ni moom la lamb ji demee tey ndaxte Black dafa nekk nit koo xamante ni xale la boo xamante am na joom trop te yakaar na ne am na jaar-jaar si li nga xamante ni moom mooy lambu kaarang yaakaar naa ne ndawu kaarang yi xam nañ kan mooy Black kon Black bu ko defee rek ma jox leen kooku Black asalaamaaleykum. Sibila Black ñu ngi lay dalal ci plateau li nga xamante ni moom mooy suñu TV. suñu TV ñëwoon ak yen rek euh, dina wax rek naan euh, tey yow yaay suñu consultant. bu bëggoon a xam nag lan mooy euh, bëre li nga xamante ni moom la xale yi di dund léegi ak ñi nga xamante ni moom ngay gis ci làmb ji nga daal di wax si nga xamante ni noonu la làmb ji di demee. waaw asubilaahi mina seytaan rajim bismilaahi rahmaani rahim bon tey mooy finaalu làmb ji. tey la ñuy pois poids lourd yi ak poids léger yi bon comme niñ koy waxee rek xale yu am jom xale yu am talant ci làmb ji ñoo ñëw fas yéene jongante bon tey nag mu ngi nekk journée boo xamante ne ni journée bi ruus ci Karang bon ba tax na ñëpp ñu ngi fi di xaar mbër yi dugg si mbër ñëw ñu war a bëree lu nice bon tey nag boo gisee man sama teewaay fii ma ñëwoon pour expliquer gaa yi loo xamante ne moom mooy daw euh, ci làmb ji ndax mbër fi des. Euh, vraiment ay jàmbaar lañ ay gaynde lañ quoi bon ay boy yu mën a bëre rek ñoo fi tase man nag bon sportif la comme ñoom ok. yaakaar nga ne yaakaar nga ne lambu ji tey dana ala ndaw be. tey moom euh, ku ko tar rek tar nga lépp tey mooy tey mooy tey mooy tey mooy lambu ji tey mooy lépp parce que tey la poids léger yi la ñuy yeggali poids léger yi dugg ci poids lourd yi tey moom mooy lépp. kon euh, mbokk amateur yi nga xamante ni yéen baaxoo di seetaan euh, suñu TV ñu ngi leen di wax rek naan tey dañoo ànd ak suñ benn mbër boo xamante ni moo suñ consultant tey ñu ko gën koo xam si Black Black nag mu ngi nekk doomu Kaarang yaakaar naa ne kanam tuuti rek dinañ leen jox li nga xamante ni moom mooy programme boobu yaakaar naa ne tey day toj tey suñu TV day ànd ak yéen di leen bégal saa su nekk ñu baaxoo di def ak yéen kon bu ko defee rek ñu daal di taaxirlu ba ci kanam ñu dem ak yéen si biir ok jërëjëf gaay Banjako Babylone Olympique Caporal ak Bébé Nico ñu ngi ñaan su mbëri poids léger nekkee si dëkk bi nañ ñëw bindu 10 minutes nañ commencé tirage bi bëri ko mu jeex dugg ci luur bi bëri ko mu jeex ñu xaar ba déwén mbëri poids léger bu bare pour bëre may nañ leen 10 minutes ñu commencé combat fu mbër nekk nga jege si 10 minutes dañu commencé combat yi ñii ñoo fi nekk Soldia Kamma Mbelaan Baba Ndew Volcan Sanjapu Babylone ak Bébé ñu ñaar fu mbër toll nga ñëw jege si balay 10 ñu commencé combat mu jeex ñu dugg ci poids bi animation. kon ñu leen wax ne dal ak jàmm. monsieur Bousso ñu ngi leen di dalal ak jàmm yaag ñi nga àndal di leen wan mbir mi ñun ñoo ko bokk et comme ñun ñoo ko bokk te mënuñ koo xaar ñaar nag il ñu rafetal ko maanaam dañuy wax dañuy fëddali di wax nañu ñi relation bi am entre garage Gambie ak garage Sénégal maanaam garage kaarang benn la amul benn xarma yàlla si diggante ñaari gaaru ceer yi moo taxoon ñu yëkkati bi tuddee leen ko. e keroog bi ñu leen ko tuddee ba léegi nag yéen a ngi ñu di ñuy laaj bés bi kañ la jot na wala jotul di ñu soññi e kon bu ñu leen gisee ngeen agsi ñu ngi leen di wax ne daleen ak jàmmo dal leen ak jàmmo ñu ngi leen gërëm di leen sant di leen wax ne agsi ngeen seen dëkk agsi ngeen kaarang seen dëkk kon ba ci kanam ndey faatu Gambie yaa ngi noonu woy leen tàgg leen ñu may la xaalis senegal jëm kanam. nga woy Sénégal nga nga woy Gambien yi. dama ne senegal jëm kanam waaye damaa juum Sénégal bi jëm kanam. teg si nii eh, eh, kii di ñëw nii mooy Awa Awa yegg si leen ak mer Salañ ana Ndiaye Astou gisuma ko de mu ñu ngi nii ñii ñooy jigéen ñi nga xam ne ni ñoom nañ àndal si garage bi di liggéey ak ñoom nga xam ne mer Salañ Salañ moo ko jiital mer Salañ a ngi nii mer Salañ a ngi loxo moo jiite garage bi jigéen ñi garage yëpp kii mooy seen mer moo leen jiite. dal leen ak jàmm. Eh, Njaay man tageno e eh, Sénégal bi nangi mele Njaay man tageno e eh, Sénégal nangi mele e Njaay man tageno e Sénégal bi nangi mele

Gambi naa ngi e njaay man dageno e sene Gambi naa mele e njaay man dageno e sene Gambi naa ngi mele e ne Gàmbi nangi mbele e ñaay man dageno e sene Gàmbi nangi mbele e ñaay man dageno e sene Gàmbi nangi mbele Sénégal bi naa ngi e njaay man dageno e Sénégal bi naa ngi mele e, e Sénégal bi e moo yegsi nii maire de la commune de Toubacouta l'homme de Niombato mooy dugg si nii le président de des regroupements de la gare routière de mu ngi ànd ak naataangoom Diawdine Gomis le maire de la commune de Karang ànd ak Ndeye Fatou Badiane adjointe bi koy ñu ngi leen ay dalal ak jàmm di leen wax ne Ndeye Yacine moo nekk nii Yacine Badiane moom lañ tuddee drapeau bi mu ngi ànd ak Diawdine euh, Gomis ànd ak Pape Seydou Nianko le maire de la commune de avec le maire de la commune de Karang ñoo dugg si nii si làmb bi nga xam ne chauffeur yi Karang yi ñoo ko organisé te eh, bu ngeen gisee ñu mën lii seen taxawaay ñii ñoo tax muy Jawdin Gomis ak Pape Seydou Ndianko Pape Seydou Ndianko moo ñu jiital ñoo ko jiital ba pare oh xool leen drapeau bu rafet bi drapeau Pape Seydou Ndianko moo nekk nii madame le maire firi leen drapeau boobu waaw waaye firi leen ma drapeau bu rafet bi waaye madame Ndeye Yacine Badiane premier adjointe au de la commune de Karang Poste et première édition moom lañ ko tuddee ñu ngi leen di wax ne dalee ak jàmm vraiment lii rafet na lool e xanaa ñu may gan yi tuuti rek ñu eh, wëy leen waaw moo nekk noonu rafet na kon macha allah. Yacine Badiane rek e doomi buurane aye Yacine Badiane terwa e doomi buurane di teeroo panga gelwar we bada jahado e ewa e eh, mot la me fab yang ko gelwanga gelwar we bada jahado e तलवार बन जाए ren wanga gel war we bada njaalo e kooku mooy euh, monsieur le maire euh, bu Karang ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Pape Ndianko maire bu Toubacouta ba léegi euh, ki nga xamante ne moom mooy Ndeye Fatou Ndeye Yacine Ndeye Yacine Badiane Ndeye Yacine Badiane nag ki kiiko am muy monsieur le maire Dioguine Gomis mm. ñu ngi leen di gunge rek ñu ànd ak ñoom si fi nga xamante ni moom mooy fi ñu leen dalal mm. lambu ji riis na ala daw me na gis ngeen drapeau yu rafet yooyu nga xamante ni moom la maire yi def drapeau yi rafet nañ lool yaakaar naa dina wax rek ñaan bés yi nga xamante ni moom lañ leen tuddee tey bés bu màgg tey ngeen teew ak seen i teraanga ban kontaan nga am si bés bi tey ban yëg-yëg nga si am. asalaamaaleykum dinaaw ma sant yàlla julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu uh, mboolem chauffeur bu dëkk tey Karang di nuyu waa Karang yëpp di sant yàlla bañ fekkee bés bii. ndax yëg-yëg mënut a romb nit xool la ba nga neex na mu ne la danga maa neex sama yëf yow laa ko yéene département bi bëri na jigéen Kaarang bëri na jigéen kon buñ ma si tànnee euh, tuddee ma seen bés bi vraiment mënu ma leen a fay ndax loolu ci yëg-yëg la bokk te nit ki bu la yëgee ba xamal la ko kooku mënoo koo fay kon ma kontaan trop di yéene waa làmb ji ne lii seen édition bi yal na dem bañ doon. ay mille éditions chaque année ñu koy organiser ñu koy fekkee kenn bu mu fi manqué di ñaanal ñëpp jàmm di di gërëm ñëpp di li ma si xaw a jaaxal tuuti mooy que dama bëgg bu ñuy defati drapeau daam làmb kaaram mu ñu évoluer suñ demee bay def drapeau yi mel nii. ñoom ñoo ko fi njëkk a def moo bëgg suñ koy defati ñu tëgg làmb yi trois jours def ko guddi mais final bi ñu koy def bëccëg parce que tey boolam jigéen bu yeewu si dëkk bi amoon na envie yu ñëw toog ak man jàppale ma si bés bi mais ku nekk xam nga ne jigéenu Kaarang seen activité yëpp suba teel la fiñ toll ni kun toog si làmb bi ba yenn heure yi duñ ko mën parce que dañuy teel a xëy waaw loolu moo waral tey jii ni daal moom looloo tax may lancer appel pour que ne bu ñuy defati drapeau fii si Kaarang nañuy fexe ba di ko def euh, tàkkusaan comme ni ko comme ni ko arène nationale di defee parce xam naa ne drapeau xam làmb màggaay làmb toll na noonu Kaarang maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñi ngeen xam ne ne bu ñuy nit ñi di gis mbala suñuy nit ñi déglu ci yéen lañ koy jaaralee moo tax yéen tamit ñu leen leen ñi nuyu di leen gërëm di leen sant wasalaam jërëjëf soxna Yacine Badiane kaddu yi jotal na yaakaar naa ne mbooloo mi dégg ngeen loolu nga xam ne moom la Yacine Badiane wax kon nag bu ko defee rek ah, ñu daal di seeti li nga xamante ni moom mooy ah, arène bu Kaxang public bu Kaxang nag yaakaar naa ne tey soxla nañu lenn loo xamante ni war na mën a donkante si biir dëkk bi tey animation bi kii euh, mooy. Euh, ki nga xam ne moom mooy Mor Ngom ànd ak ki nga xam ne moom mooy Ndeye Faar Ngom ñoom ñoo nekk si wàllu animation bi bu ko defee ñu del seeti gaaru Thiès bi nga xamante moom mooy jógee gàmbi ñu ngi fi ñoom itam ñu jox leen micro. ñu leen di nuyu. di leen di wax di leen di wax rek ba ban yëg-yëg ngeen am si bés bi nga xamante ni tey si lañ leen woo. muy bésu drapeau nga xamante ne waa gaaru Thiel bu Sénégal ñoo ko tëgg woo si gaaru Thiel bi nga xamante moo nekk Gambia ñu xam ne ñaari réew yi benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar yaakaar naa ne ku wax ne Sénégal loo ne Gambie ku wax Gambie ne Sénégal ngeen bokkul ñëw rek teew feete si li nga xam ne moom mooy bés liggéey benn yëg-yëg nga ci am papa. Ah, yëg bi jàmm rek la ndax Sénégal Gambie yëpp benn la ku ko jéem a xaajal tam da waaye du mun ne da ni Sénégal ak Gambia bokkee amul benn réew bu ko bokkee Afrique yëpp benn laaka bi la benn tarixa bi benn diina bi benn ceeb bi benn domola bi lépp ñoo bokk la donc du du du dem eh, Ndiaye mooy président garaw seer bu Amdalaay Pam Ndiango mooy président garaw seer Kaarang ñoom ñaar yàlla boole kon su Kaarang jógee dem tuddee Ndiaye Manga drapeau wax dëgg yàlla def nañ war parce que dafa gën a rataxal diggante Eh, ba tey dafa woon nit ñi ñun ñëpp benn lañ kon Ndiaye Manga dafa ànd ak président bi dem dem tournée mu ebal ñu ñu ñëw ba tey woon waa Garo Seck am na Kaarang ne ñu yëpp benn lañ Ndiaye na waaye am na ñu ebal lañ ñun ñu ñëw woon mbooloo mi ñu yëpp benn mu am lu mu teg si loxo ñu ñëw pour présenter ko mbooloo mi waaw jërëjëf. baax na kooku mooy suñu papa yi nga xam ne ñoom ñoo jógee ba Gambia ñëwoon teewe si bés bi nga xamante ni moom mooy euh, bésu gaaru Thiel bu Kaarang yaakaar naa kontaan nañ si bu baax a baax teewaay bi rafet na lool diggante Sénégal ak Gambie nag euh, benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar yaakaar naa ne ku ne Sénégal ne Gambie ku ne Gambie ne Sénégal ay doowu Sénégal ñoom ñooy yeewoo Gambie ay ndaw Gambia ñooy yeewoo biir Sénégal kon bu ko defee rek ñu daal di ñëw indi leen li nga xam ne mooy combat yi nga xam ne ñoo jot a dox si li nga xamante ne nii moom mooy euh, arène bu euh, bu te yaakaar naa drapeau bi dina ala dawme ndaxte gis nañ fi ay mbëri poids lourds yu takku gis nañ fi ay mbëri poids léger yu takku kon bu ko daal di jëm seen si nga xam ne mooy biir àll ñu dem si biir. waaw comme eh, mooy premier combat bi nga xamante ni moom moo dox si ki nga xam ne mooy caporal ak ñaamaar seeraas ñaamaar seeraas ak caporal nag ñoom ñooy ki nga xamante ñooy premier combat bu alese arbitre soufflé na dox na seen diggante ñoom ñaar tey nee naa leen dama am benn consultant idée ñu ngeen koo xam si euh, ki nga xam ne mooy Black waa Black noo gisee ñaari mbër yooyu Black. waa bon en tout cas ñaari mbër yu am fula am fayda la ci lu ñuy def te caporal dafa nekk xale bu ndaw te dafa nekk ci yoonu dem euh, waa ji nag moom tamit nekk na koo xamante ne mag la yàgg na ci làmb mais en tout cas bëri xale ak mag la. caporal moom na dal rek tey xam nga bañ a dara sa mag moom da nga jox ba mu mat sëkk na respecté combat bi rek mu génn ci. waaw lewaatoo nañu ñu ngi ñoom ñaar diggante ñaamaar ak caporal caporal ñaamaar caporal ñaamaar caporal ñaamaar

caporal daan na ñaamaar caporal caporal nan nga daanee ñaamaar. nice waaw entraînement la rek. waa Kaarang waxaguma dara xanaa wañu seetaanaat ba si kanam rek ñaan yàlla may ñu ndam. kooku mooy caporal moo daan ñaamaar dellu bu set wecc bu amul benn werante bu ndaw bu Kaarang caporal di xale bu am jom combat bi gaaw na reex na waaw waaw nee tey bëre dina feeñ. tey bëre dana feeñ tey bëre dana feeñ diggante caporal la woon ak ñaamaar premier combat caporal daan ki nga xamante ne moom mooy ñaamaar deuxième a ñu ngi si deuxième combat li nga xam ne moom mooy poids léger bi combat bi nag arbitre bi di Salif ñaari mbër yi ngeen xam ko ci olympique ak ki nga xamante ni moom mooy bébé Nico olympique bébé Nico bébé Nico moo ngem moo ngemu lu weex li olympique bébé Nico ñu ngi lewaato olympique bébé Nico olympique bébé Nico jàppante nañu jàppante nañu olympique bébé Nico olympique daan na bébé Nico olympique daan na bébé Nico olympique daan na bébé noo noo daane waaji yaakaar naa ne joo yaag ko waaj yaag waa ji taxaw waa ji moom man dama ko dama ko ëpp doole te won ko ah. dama ko ëpp doole ëpp ko espoir won ko ko xam ne li may def nii dama si def fuula ak fayda ak jom fit kon gis nga si gars yi waaw yaa ngi bëgg yow si kanam ñu xaaral si yeneen combat waaw ñu xaar ok kooku nga xamante moom moo daañ waa ji jël bu faat boobu jërëjëf olympique mu nekkoon deuxième nga xam ne mooy poids bi nag troisième combat poids léger bi mu ngi dox si ki nga xam mooy caporal ak ki nga xamante ni moom mooy Babylone Babylone caporal caporal ngeen moo ngeen mu Lagos yi moom moo ngeen moo ngeen mu lan lu weex li ñu ngi lewaatoo diggante kaporal ak ki nga xamante ni moom mooy Babylone. Babylone Caporal waa dafa mel ni suñ consultant bi dafa daw nag suñ consultant bi lamb dafa xaawoon a am li nga xamante ni nii moom mooy tuuti tension rek mu daw da daw waaye yaakaar naa ne nag lamb ji ba léegi daw me ndax yaakaar naa ne ñu ko tuddee ay nit ñu màgg lañ moo tax làmb ji warta mën a yàqu waaw waaw dëggal ma waaye kooku mooy Mor Ngom waay ndey Faatu ngoom daal di ko yuuxu rek noonu ba léegi ñu ngi si combat bi diggante caporal ak ka moom mooy. Euh, Babylone ñoom ñaar yëpp di doomi Karang Babylone caporal Babylone caporal ngi lewaatoo Babylone ngi ne takk kenn ku ne di yaa ngi lewaatoo kenn demagul nag si diggante ñaari mbor yooyu caporal ak ki nga xamante moom mooy Babylone Babylone caporal la ñoom ñaar seen bëre bi daal gar naa dafa mel ni dañoo ñemewante wuñ Babylone Caporal ñaari mbër yaa ngi lewaatoo diggante Babylone ak Caporal songo nañu congom kow nañu congom kow Babylone dam na jël ko waaye Caporal ne na teg Babylone Caporal Babylone Caporal attention Babylone dem na jël na Caporal Babylone kap takk na Caporal aa ah, affaire bi jaxasoo na combat ba jaxasoo na ay combat bi jaxasoo na leer na bërëb leerul de ah ñaari mbor yooyu combat bi tàq suuf ay waay caporal daan na ki nga xamante moom mooy Babylone nee na arbitre nee na caporal daan na Babylone arbitre nee na caporal daan na waa caporal. ñaari baaraam ñaari baaraam yu ma gis nga tàllal noonu lan moo waral ñaari baaraam yu caporal ak noo ko daanee. ma la volcan sa waay dama ko may fu ma mu ne ma deuxième pied ko kii maa ko mën foofu du ma moromam sax waaw. waaw du ma moromam. ñaari baaraam yi. noonu noonu la. waaw après ngeen di comprendre teg fa seen loxo rek waaw. merci baax na kooku mooy ki nga xamante ni moom mooy <laughs> ne mooy volcan nee na du caporal dina changé def ko volcan jël bi na mu ne ñaari baaraam yi dinañ ko si kanam kooku mooy Seeku Diouf Seeku Diouf ngeen gis muy dugg si noonu nag waaw waaw. kooku mooy ki nga xam moom mooy Seexu Juuf waaw seekoo ngoog waaw waaw numéro poids lourd bu ñëpp xam am woy buñ ko jagleel muy Seexu Juuf Seexu Juuf nag moo dugg si noonu nekk si ci mu te yaakaar naa ne làmb ji deex na ala daw me na képp koo xamante ne nii tardé nga làmb ji tardé nga lu rëy waay bés bi neex na ala na ay waay mooy jibi jibee ngi noonu ñu gën koo xam si ko ole waaw waaw jibee ngi noonu waaw ñu gën koo mooy si xaw yàlla ko ole jaajëf jibi jaajëf jibi jibee ngoog to yàlla ko ole waay champion ambulant ak ki nga xamante ni nii nag euh, moom mooy Soldia Soldia campement Mbelane Soldia am na lum sànni campement Mbelane campement daw na moytu ko campement Mbelane moo taxawoon di jat Mambelan soldier. Tampa Mambelan soldier soldier moo ñu jox ginaaw noonu. Tampa Mambelan. Ngembo ngemb lu weex li. Soldier moo ngembo ngemb li nga xamante ni moom mooy ngemb am train train train yi. Soldia campement Mbelane attention Soldia daw na jël campement Mbelane campement Mbelane rasu na campement Mbelane rasu na Soldia campement Mbelane Soldia campement Mbelane campement Mbelane Soldia Soldia campement Mbelane campement Mbelane Soldia campement Mbelane Soldia Soldia campement Mbelane ñu ngi lewaatoo lewaatam kaw jàppante nañu ñu ngi damantey baaram diggante campement Mbelane Soldia combat bi diggante campement Mbelane Soldia Mambelaan Soldia ñu ngi lewaatoo jàppante nañu ñu ngi bëre ñu ngi bëre bërem kow ñoo kow Bamba Mbelane Soldia Gampama Mbelane Soldia ah yi ñu bore borem ko ah Gampama Mbelane jël na tànk Soldia Gampama Mbelane jël na tànk Soldia campement Mbelane jël na tànk Soldia Soldia hop campement Mbelane daan na Soldia campement Mbelane daan Soldia ah arbitre nee na jël amul arbitre suuf waat na diggante campement Mbelane Soldia Kam Pama Mbelane Soldia diggante Kam Pama Mbelane Soldia Kam nañu ñoo ngi damante baaraam campement Mbelane Souldia campement Mbelane Souldia campement Mbelane Souldia campement Mbelane Souldia jàppante nañu ñoom ñaar campement Mbelane Souldia campement Mbelane Soldier campement Mbelane Soldier campement Mbelane Soldier combat bi metti na diggante campement Mbelane Soldia campement Mbelane Soldia ñaari mbër yi combat bi metti na lool campement Mbelane Soldia arbitre suuf la na si diggante ñaari mbër yi ah, arbitre bi suuf la na diggante ñaari mbër yi ah, ki nga xamante ni moom mooy ah Soldia campement campement bañ na yaa combat bi métti arbitre suuf na arbitre suuf na campement Mbelane ak ki nga xam ne mooy Soldia campement Mbelane diggante ñoom ñaar encore campement Mbelane Solia jàppante nañu jàppante nañu diggante campement Mbelane ak Solia campement Mbelane Solia ah ñaari mbër Campement Mbelane Souldia combat bi metti na diggante Campement Mbelane ak Souldia ñu ngi damantey baaram ma mbelan soldia campement mbelan jël na tànk soldia campement mbelan jël na tànk soldia oh campement mbelan daan daan na soldia campement mbelan daan daan na soldia campement Mbelane campement daal ñu seet si lan. Kasa. waaye campement rek a jot. Kasa lambu rek. waaw lambu moo demee noonu me ñun yëpp ay nit. mais gars nag dañu war a xool ci règlement bi. parce que bu ma bu tamit. moo fekk arbitre moo ma xañ parce que daan naa ko. na ñu bàyyi ci ñun yëpp benn lañ. waa Kaolack dégg ngeen ko commission d'arbitre ci yaakaar naa ne kaddu yi nga xam ne moom la jotale am na solo trop yaakaar naa ne war ngeen bàyyi xel bu baax a baax si combat yi nga xam ne ñoom loolu lañ koy a jàll kon jërëjëf gars ñaari mbër yi mu ngi wax ak ñaari mbër yi diggante ki nga xamante ni moom mooy caporal ak ki nga xamante moom mooy olympique olympique ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo olympique caporal olympique dem na jël caporal waaye caporal bañ na tànk caporal caporal bañ olympique caporal combat gi neex ma ñoom ñaar ñu ngi bëre Fall olympique caporal olympique caporal ñoom ñaar ñu ngi bëre olympique jël na tànk caporal caporal bañ na caporal bañ na olympique jël corporal Olympique caporal attention

combat bi diggante olympique ak caporal lak olympique caporal combat bi metti na diggante olympique ak caporal caporal olympique caporal olympique demoon na boy eh, rek mais caporal bañ na caporal jël na tànk olympique caporal jël na tànk olympique caporal jël na tànk olympique caporal jël na tànk olympique caporal jël na tànk olympique caporal jël caporal olympique caporal jàppante nañu jàppante nañu olympique caporal ah attention olympique caporal jël na tànk Olympique National combat bi metti na combat bi jël na tànk caporal Olympique am na tànk caporal waaye ala caporal ras ngembu caporal caporal am na ngembu olympique ñoom yaa ko ne ko ci nekk am na ngembu moram ka diggante caporal ak olympique si arène municipale bu Karang tambour Masor Mor Ngom animation Ndeye Fatou Ngom diggante ñaari mbër ba léegi caporal ak olympique caporal olympique diggante caporal ak olympique caporal olympique kenn ku si nekk am nga ngemu sa morom caporal daan caporal daan olympique naa dañuy foo rek dañoo ñëw fii comme ñoo yaa ko bokk entraînement ñu ñëw xam naa ñàkk a déggoo moo am suñ biir rek ba ñu bëre quoi waaw mais xam naa après ñun suñ toogee nañ jubóo. non non non loolu du def du yàqute suñu waxtaanee nañ jubóo. jërëjëf caporal kon yaakaar naa ne ñaari combat yooyu ñaari bëri yooyu ñoo bokk entraînement ñoom ñaar dégg ngeen lu baax li nga xam ne loolu la caporal wax yaakaar naa ne lii. mooy li nga xam mooy neexal lamb doy animé lamb kon ñoom ñaar ay doomu ndey lañu ok jërëjëf ñoo ñu ngi si combat bi nga xamante ne nag moom moo dox si ki nga xam ne mooy Sandiafou ak ki nga xam ne moom mooy campement Mbelane campement Mbelane Sandiafou Dia Sandiafou arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi arbitre baa ngi wax ñaari mbër yi arbitre sifle na campement a ngi ne tekk di déglu ki nga xam ne mooy Sandiafou ñaari mbër yi dafa mel ni dañoo xamante campement ambulance Ndiaffou campement ambulance campement Mbelane Sandiafou campement Mbelane ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar campement ambulance kon yaakaar naa ne poids lourd dina neex sàmpa jàppante nañu jàppante nañu jàppante nañu Ndiafou a campement Mbelane campement Mbelane sa Ndiafou sa Ndiafou ba léegi dara am campement Mbelane sa Ndiafou naan sa njaafu sanjaafu campement sanjaafu songo nañu songom kaw songo nañu songom kaw diggante campement Mbelane campement Mbelane Sandiafou nañu songom kaw Sandiafou am na ngemb ki nga xam mooy campement Mbelane Sandiafou am na ngemb campement Mbelane Sandiafou am na ngemb na ko pour mu deewuñ ko waay campement Mbelane dafa bañ campement Mbelane Sandiafou campement Mbelane am na benn avertissement Belane sa Njaafu ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar ñu ngi ñoom ñaar diggante ki nga xamante ni moom mooy Sandiafou ak campement Mbelane campement Mbelane jël na tànk Sandiafou Sandiafou jël na tànk campement daan na ko Sandiafou daan na campement Touba Ndiafou daan na campement Mbelane Sa Ndiafou moom moo daan campement Mbelane waaw Sa Ndiafou Sa Ndiafou looy wax tey rajo bu nga xam ni nga daanee ki nga xam ne moom mooy campement Mbelane yow ka bu fi daam ah. fete bu fi daam man ka fo jaxole dama ah. jaxole dama jaxole bolinte moof ah. i seerana moom i kon ka ne Sanjaafu ne na séeréer la séeréer lay làkk mu ne dafa jàpp tànk bi rek bu mu jàppee bi rek bës rek abal daal di toog noonu la daane li nga xam ne moom mooy campement Mbelane kon jërëjëf gars yi ñu beneen combat rek ñu daal indi leen li nga xamante ne suñu TV daal suñu TV bàyyiwul dara fas yéene bégal li nga xam moom mooy amaateeru Kaarang yi nga xam ne ñoom ñoo nekk dundu lamb si biir Kaarang kon bu ko defee rek ñu daal di jàkkaarloowaat rek li nga xam ne moom mooy demi-finale yi dina ñëwaat ak yéen si kanam kon mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moom mooy drapeau bu ñu tuddee madame le maire bu Kaaxang kon boo nekk noonu yaakaar naa ne drapeau bi ala daw me na bu ndegee rek duñ def ñëw seet ci ki nga xamante ni moom mooy madame le maire waaw waaw drapeau bi rafet na car macha allah. loolu mooy drapeau madame le maire bu Kaarang yaakaar naa ne drapeau bi rafet na trop madame le maire bu Karang Yacine Badiane ànd ak ñi nga xamante ne ñoo lay ko si nga xam ne mooy euh, monsieur Diogine Gomis gis nañ fi ki nga xamante ni moom mooy monsieur Alioune Sarr ànd ak ki nga xamante ni moom mooy aussi ay jigéenam ñoom ñëpp ñu ngi si seen drapeau boobu. ànd ak ki nga xamante ni aussi moom mooy Ablaye Ba yaakaar naa ne. ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo accompagner madame le maire ñi ñi accompagner le maire nag ba léegi ñu ngi gis ci wetam ki nga xamante ni nii aussi waaw waaw lamb ji ala daw me na loolu mooy drapeau madame le maire euh, bu Kaxanga waaw waaw fi juddu fa deeñ ne sofoor ñi ne ñoom geer lañ mi roosi manu may fi ku fi juddu te man da looy dootoo fa deeñ fi judd ba dee. merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup vraiment vraiment neex na lool. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waaw ngeen may ñu rek ngeen may ñu rek mbasa mbasa waay ñu dellu ñu commencé continuer si liggéey bi dafa guddi dafa guddi waaw monsieur Diabrine Gomis ñu ngi lay nuyu yaak sa équipe madame l'adjointe au maire de la commune de Karang pos ñu ngi lay nuyu Massamba Sarr waaye may ñu waay neex na lool vraiment neex na lool waaw. Mor merci merci beaucoup Mor neex na lool Massamba Saawaay ñu kon ne si liggéey bi dafa am yeneen délégation yu des war a présenté wu merci beaucoup merci beaucoup merci merci merci merci vraiment a ah, moom mooy wax waaw kon madame bismillah ñu ngi lay dalal ak jàmm yaag say équipe merci. waaw looloo neex. yow la kay moo neex kay waaw. boo amee looy wax aussi mën ngaa sànni ay kalkan bi rek waaw. allo asalaamaaleykum. leen di ku nekk sa tur sa sant di kontaan tey trop lay maa gën a kontaan département bi yaatu na jigéen ñi bëri nañ fi ñi yeewoo ci ci dëkk bi bëri nañ fi ñi ma ëpp maanaa ngi yeewoo ci dëkk bi ngeen jël bés bi teg ko sama loxo kon mënuma leen a fay lay maa gën a kontaan <laughs> bés bii bés bi dama ci sant yàlla bu baax bés bi ni ma ci kontaanee gëj naa kontaanee nii ci bés bu toll ni vraiment dama kontaan maa ngi gërëm ñëpp rawatina délégation bi ma àndal di gërëm sama meeru dëkk seetaanu ma benn yoon bu ma jógee ba léegi mu ngi taxaw sama ginnaaw topp ma di ma encouragé kon sant maa ngi koy sant di ko gërëm. di sant ñi topp sama ginnaaw yëpp dama ne làmb ku koy tëggati kaaraan maa ngi lay ñaan final bi bu amee drapeau nga def ko bëccëg ndax bu boobaa do di ngeen doyal ci billet ndax xam naa ne làmb bi final bi bu nekkoon bëccëg lañ ko def kon tey di ngeen gis nit ba fooy waaru ne kaaraan di yeewoo fi maa ngi leen di gërëm di félicité encore le maire de Toubacouta sama freer la. bañ na ko ba sa duma wooyee ma sœur la may wooyee kon moom tamit maa ngi koy encouragé di ko félicité bu baax di ko ndokkel ci bés bii tey maa ngi gërëm chauffeur u Kaarang yëpp kontaan naa si vraiment kontaan naa si waa Kaarang chauffeur yi mënuma leen a fay aw ma lenn lenn lenn lu ma yaakaar ne mun na leen fay waaye nag ñu ne ku lim juum mais du ma tudd chauffeur di tëb Babou Diané Babou jaane sama lëpp la sama lépp la <laughs> <laughs> mënuma lim ñëpp mais il faut ma tudd tur waaw ndax Babou jaane tey bés bi su ma fi amee fitu taxaw yàlla moom la moo ma jàppale fu ma toll di ma encouragé madame la maire amuñu kenn yow lañu am kon il faut ma tudd tur mais nag bàyyiwuma benn chauffeur maa ngi gërëm ñëpp di sant apprenti coxeur lépp ñu yeewoo même jaaykat yi yeewoo gaaraas sax maa leen gërëm vraiment kontaan naa la képp képp ku yeewoo gaaraas gërëm naa la maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp wa salaam merci beaucoup. ah yaay Cheikh kontaan naa. Sakura Wali jekku lay fa ñoom. gan bii nga coroloo wàlle yaa ko moom. yow bu la neexee su mi dama ne yaa dis gor. yaa baax yaa jàppale. yal na la yàlla jàppale jàppale mbooloom julit sama rakk ji fa nga bëgg a yegg yal na la fa yàlla yeggale billaay wallaay asim dama ne mboom bis yaa jàpp ta bàyyi góor rek ko man waaye nag sama doom jee dama koy sant damay sant monsieur le ndax daa am lu ma waxan moom te dindi wu dara monsieur le yaa gore yaa baax yal na fi yàgg ak mbooloom julit ndax ba ngay ànd ak ay seex dara xewut dara amut ba bàyyi woo ko fàtte woo ko jënde woo ne kontaan sama xol sedd na monsieur le maire yal na fi yàgg ak mbooloom jullit di gërëm Pam Njàng ko sama doom jee nag xam na lu mu fekkee faj ko xaw ma lu mu wuute mbaa lu mu yëgut yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay kontaan naa. jërëjëf jërëjëf madame le maire vraiment li nga wax yow maanaam ñun ñoo la mënta fay ñun ñoo la mënta fay parce que guddi na bon bi ñu la tuddee dara ba léegi amu tooguloo yaa ngi ñuy soññi di ñu conseiller di ñu wax fu ngeen toll ci affaire bi. vraiment loolu yëpp mënoon lañ see bañ a fekk bi ñëwoon sax mënoon nga ne wax ne ah man de vraiment drapeau bi nangam man nangam dugg na fii génn na fii gantal ñu waaye loolu yëpp fekkul la ci maanaam yëg bi nga am ci sa bopp ba xam ne yëg nañ la rawat ñun nag si ñun la uppee comme baabu jaane bi ni nga ko waxee maak moom ñoo bokk commune moom kenn jànku la dëkk ma dëkk kër kër ambu monsieur Ablaye Ndiaye mooy suñ maire waaye moom mu ne moom dafa toxu kaarang ma ne ko nag sa kayit yi moom balaa nga koy defar da nga son da nga sonn parce que duñ nangu mukk moom moom du yomb moom. waaw kon vraiment kontaan nañ gërëm nañ sant nañ merci beaucoup merci beaucoup ñu ngi leen di jégalu ci dérangement bi ak ci déplacement bi baa bu fekkee ne am nga looy sànni tuuti nga ko. tey moom mënuma wax gërëmal ma gars yi waaw kon madame yaa ngi ko dégg mu ne xolam moo fees kontaan na lool gërëm na la sant na la ak sa équipe yaag monsieur Jawdin Gomis ak chauffeur yi Kaarang yi yëpp chauffeur Sénégal yëpp la ñuy wax parce que la ñuy wax chauffeur Kaarang maanaam lii moom damaa wax ne bon transport ak sport rek moo lii transport ak sport rek moo lii parce que ku ne loo téye woon bàyyi nga ko. ñëw fii fekk lañ suñ bés bi am na ñoo xam ne ñu nga jóge ba poste Kër Ayib ñi jóge Farafeñe ñi jóge Mbuur ñi jóge Thiès boo limee maanaam da ngay juum région bu ne ci Sénégal rek nit jóge na fi ngir fekk si bis bi kon ñu ngi gërëm di sant et comme dafa des beneen délégation muy monsieur le maire de la commune de Toubacouta Pape Sidi Ndianko mën nañ gàttal yemal ko fii bon ba enveloppe moom baa bu nga koy jox waaw ok ok merci beaucoup ok merci waaw mën ngeen leen gunge ñu delluwaat seen place yéen ñi leen jëlee woon waaw kon bu nekk nii man euh, monsieur Pape Seydou Nianko mën ngaa préparer euh, ñu def ko benn liggéey rek comme ça buñ si jógee rek nga xam ne dañuy attaqué poids lourd bi waaw ñu jël poids lourd bi. hande yontiɗo sam jango yontiɗum haga refe sasaye ma lii de moom kenn mënu kenn mësu koo gis moom waaw waaw Mbassa Mbassa merci merci merci waaw waaw merci beaucoup eh, monsieur le maire fii moom ñun amul dara lu ñuy wax comme yaa ngi ni moom micro baa ngi noonu auzu euh, billaahi mina seytaani rajiim bisimilah rahmaani rahim maa ngi nuyu borom dëkk bu Kaarang du nuyu imaam yi ratib du nuyu abbé Jean Issa du nuyu nag sama rak sama frère di Diogène Gomis maire bu Kaarang euh, dama am benn fierté tey pour taxaw fii ci Kaarang fii maa fi njëkk a tëgg làmb teg fi 500000 teg fi 800000 teg fi 1 million kon su ma ñëwee tey ngeen nekk samay rak jël samay tànk dama ne am na héritage mooy sama doon taxaw na may wax ne yéen chauffeurs si ak transporteurs yi nañu gëm suñu bopp dama ne ñun dañu war a nekk modèle ci senegal ci fulla ci fayda ci dëgg. parce que développement bi doxal commune Kaarang bi tey ci seen loxo la ne su ngeen ko gëmee ci seen loxo la ne su ngeen ko gëmul ci seen loxo la ne kon premier partenaire maire Kaarang yéen la premier bailleur de fonds maire Kaarang yéen la kon bu ngeen xamee li ngeen yor tàllal seen loxo maire bi mu bàyyi ay nelawam ñëw taxaw leen ba heure bii monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm tey nag. ba ma la bëggee jàppale ci digg gaaxas bi laa taxaw ne képp ko ànd ak man wala nga gëm ma man Pape Ndiankou àndal ak Gomis te gis nga politique mooy doxal Sénégal te fu ma yegg tey nag damay ne transport moo tax ma yegg fa damay ne fu ma jëm tey transport mooy tax ma ñime fa te taxaw naa fii ci digg gaaxas bi wax naa leen dama ne fii laa doon taxaw di tëgg ay làmb lii ma doon def ngeen topp ci sama kaw tey newatu ma ngeen dafi def dama ne leen fii laay taxaw waxaat ko. damay ñaan yàlla élection 2017 incha allahu rabbi candidat lay doon ci département bi. dafa am ñu ne Pam Ndianko dafa teel a wax li mu bëgg. dama ne boo amee feebar muy jàngoro da koy weer. dama ne li nga mënut a jox sa bopp te nit ñi la ci dimbale danga koy wax. ngem bu dem bëgg taxul nga yóbbu drapeau. arène bi bëri na ay mbër mais kenn rek koy yóbbu drapeau bi man nag pare naa ngembu naa te ci combat bi laa jëm. may wax sëfër bu dëkk ñoom baato demal nga uti kàddante dem uti récépissé te xam nga am nga candidat te sama député nag yéen a koy njëkk a porté ma jëm ci maire yi kon maa ngi leen di ñaan képp kuy chauffeur wala ngay transporteur ngeen jàppale ñu ci élection yi jëm parce que ñun chauffeur dañu am rongoñ boo xam ne fompaguñ ko bés ki jon yàlla tey loolu nag man dama fas yéene taxaw pour fompal rongoñ chauffeur si te dama ko gëm parce que man dama ne chauffeur sama deret la dafa am benn waay bu ñëw toog fële léegi benn waay bu ko yàq làmb bi dama ne ku yàq làmb bi na ko duma ba mu nooy ay góor rek a fi ne. dama ne bu leen te bu leen ragal dama xamee ne yéen am ngeen wéeruwaay te xam ngeen man ku ma wéeru ñeme naa combat mbër yi nañu xam ne làmb newatul caaxaan làmb investissement la. munoo jël sa woykat jël sa tëggkat luye say baas luye say sees ñëw fii benn xale bu ndaw di dóor ci ay taabal di ko yàq seeni moromi góor lañ comme yéen mbër bu fi yàq làmb ji duma leen ko ba mu nooy nit da ngay sa bopp te soo boo gëmee sa bopp ku la fa fekk da ko teg ci yoon kon damay wax nag ne discipline ku leen ci fekk neen ko uyu waaye bu defante jotee nag bésu defante defante la làmb ji da ngeen ko teg ñàkk seen xaalis fas yéene mbër bu gañee ngeen jox ko la mu moom kon benn mbër bu mu fi ñëw arbitre wu leen ñu ne ci taabul bi benn chauffeur newu ci commission moo fi ne kon commission bu ñu joxee verdict dañ ko war a dëggal sport la dangay ñëw daanu wala nga ñu daan la da nga war a nanguwaat xam ne boo daanoo fi nga dem jéem a jiwaat feneen te ñoom dañuy naxaate fii ñu nekk léeg-léeg ñu mayante léeg-léeg ñu ànd dem déyante ñëw boo yàq seen làmb bu leen ko nangu. am nañ fula boobu mbër mu fu ñëw na nga xam régler bu la at bi joxee victoire nga xam ne yaa ko moom bu la at bi joxee nga xam ne loolu mooy sa wërsëg maa ngi sant nag ñëpp mënoon naa fay toog ak yéen mais suba damay tukki te xam ngeen ci xat yi ñu nekk kenn du leen ko waxal tey nag dama amoon bu mag pour partager ak yéen ci bés bi démb fi laa fanaan maa ngi dagabaab ba trois heures du matin am nañu fa ñëw bërki démb ñu ngi ci gàmmu yi maa ngi sant nag képp ku dëkk Karang muy góor ak jigéen mag ak ndaw dëkk bi fukki turandoo ak benn laa fi am kon Kaarang desaltuñ ma dara dama ne dëkk bi fi laa dóoree sama signal ba fi ma yegg si tey kon war ngeen nekk tey man war naa nekk modèle ci chauffeur ak transporteur lu ne war ngeen ko mën a doon ci réew mi wax naa ko président Macky Sall dama ko ne ñun dañu bokk ci ñi war a defar Sénégal chauffeur dafa war a passé rek fu mu wax ñu ne wuyu lañ fu ñu wax ñu ne ay bandi lañ te nit ñu baax ñi ñu ñoo leen di jur nit ñu baax ñoo leen yóbbu jong bu gën a rafet. bu ko sëfal ngoro jee ku ko ngoro ji ñàkk merci merci merci merci merci merci kon ma leen di wax merci na ngeen ma jàppaleel Gomis lépp luy am na nekk seen soxla dama ne ku compte Gomis ci Kaarang fii doon chauffeur ak transporteur Pape Ndiang ko compte réeroo sama rakk la te lépp lu mu ne xam naa ko te lépp lu ma ne mu ngi ci kon dama ne bu ngeen di jàppalee Gomis doole jum am maako ma tey nag dañuy politique nit li mu nekk da koy ñeme nit day am pété te damaa féeteeg moom dama ne damaa féeteeg Gomis mu nekk sama rek ma boot ko rokkanti ko kon maa ngi ñaan képp kuy chauffeur wala transporteur wala apprenti wuti leen carte d'identité ab électeur maa ngi sant na ñëpp di sant tamit Jim Ngom mi nga xam tey mooy sama adjoint ma bàyyi ko ak yéen ak Mbaye Cissé di sant xale yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw góorgóorlu leen ngeen am yar am teggin gëm leen seen bopp xam leen li ngeen yor kenn du yor alal buy jar cinq millions nga yokk ko teg ko ci kaw di ko foye am leen fulla da leen ay yëre yu set chauffeur dafa war a am correct nit ki nga xam dafay yóbbu ay kilifa di yóbbu nit ku nekk dafa war a am correction am correct bàyyi leen kilis kolos jël seen taat yi def ko ci biti gëm leen seen bopp ngeen di comporté comportement bu baax chaque jour sant leen ko nit ku baax fi ñu koy njëkk nawee mooy ci comportement am kenn mënut a juger nit lu amul comportement kon nag bu nga gisee may wax ak yéen damaa bokk ci yéen nekk seen ngeen nekk sama produit maa leen ko sañ a wax kon maa ngi sant tamit nag sant gendarmerie di sant douane di sant police di sant képp koy autorité te nekk fii maa ngi sant ñëpp di gërëjël ñëpp di ñaan làmb ji yal na ko yàlla yeggale ci jàmm vraiment bëggoon naa partager ak yéen xew-xew yi bëri na may yëkkati cent cinquante andi ko sama participation di leen na ngeen jàpp date bi. ak bu jot ngeen tëgg ko ak bu jot moo dugal ci sama loxo incha allahu rabbi sant naa leen bu baax. maa ngi nuyu tamit suñu mbokku Gambien yi may wax tamit ngeen ñaan yàlla ci diggante bi jàmm am fi diggante Banjul ak Sénégal mënuñoo tàggoo li am nag munul ñàkk jabar ak eh, jëkkër moo gën a jege bu jëkkee ci néeg dañu joti waaye joti bi yëpp jàmm la te ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla saafara ci daraja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam coono yi ñun ñëpp ko bokk. ni bi sonnee la ñu sonne ñoo bokk ceer bi ñun ñëpp koy yëg mais dañ ko war a régler mu jeex ku nekk dégg na sama déclaration tey ci wax diggante bi fitna mënu fi am ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk ay sant ñoo jëlante ay jabar ñoo jëlante ay dëj kon ña nekk ca Dakar am na loo xam ne waruñu ko mën a tax ñu nangu ko mais nag li ñuy ñaan yàlla yal na yàlla def jàmm ci diggante yi yal na yàlla defal lépp loo xam ne tamit sabab la ak yéene bu baax ak njort bu baax ba ñaari borom réew yi mën a toog ci kaw table waxtaan ba juboo li ñu bëgg ñu nangul ñu ko maa ngi sant ñëpp di sant tamit commission bi nga xam tamit su ko juuf nekk sunu mag nekk suñu kóllëre jiite ko di sant tamit artistes yi nga xam tamit ay woykat la ñoom day faatu ngoom nekk fi di sant tamit yi nga xam tamit ñëpp ñoo fi nekk bàyyiwuñ kenn di sant nag sama bàjjen Yacine Badiane kon su fekkee toog na fi tey di ma sant suñu bàyyi la woon bi bàyyam jógee Nganda sama papa ko andi Kaolack ñu affecté ko Toubacouta sama papa ko jëlee Kaolack andi ko Toubacouta ñu affecté ko Kaar sama papa andi ko fi kóllëre bu dafa yàgg donc nit bu ne dafa am loo xamante ni tey mbokk lay doon kër googu la suñu bàjjen ñi ma saar doon jur mooy juri baay Badiane te tey kon ku ñu waxee tey Yacine Badiane amuñ fenn fuñ ko mën a jëlee loolu ci foofu lañ ko teg may sant nag ñëpp di wax seexu ngeen góorgóorlu ngeen tamit naxante xam ne réew mi da ngeen cee bokk balaa ñuy tirage dañuy wax suñu soxla parce que li ñuy wax ñoo ko moom comme yow tirage rek moom la ñor ñun li ñu ñor ci la ñu nekk. non dama bëgg rek li ma lay wax toujours ngeen jëm ko seen bopp am leen benn feuille de route boo xam ne fa ngeen jëm kenn du leen fàtt ngeen làmb ji bari ko ci temps ñu ngi daan këla le meilleur gagne képp koo xam nag moomam victoire am na ko jël. kon su leen toppee tey samay tànk maa ngi ñaan yàlla bépp fu may jóge suba moo fi nekkee ngeen wóotu ma te garage bii ngeen téye ko. seen alal la seen produit la yéen a ko moom te yéen a koy doon kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. Eh, kon enveloppe bi Fafa Touré yow yaa koy jël. nel di li kontel kontel jox kontel jox kii jege si anam mu weer eh, bu ko jox agresseur yi de déet dix mille vingt mille trente mille quarante cinquante ah, soixante soixante-dix quatre-vingts cent cent dix cent vingt cent trente cent quarante cent cinquante loolu président Pape Seydou Niank moo ko jox ay xaleem moo ko jox ay rakkam jox ko ay doomam jox ko ay jarbaatam jox ko ay apprentem jox ko ay chauffeur vraiment pap Pape vraiment da nga ñàkk ki ñaan Pape parce que boo boo nekkoon ko iñaan da nga doxee doxalee ne ñeneen nu ma ni ngay doxalee ñun waaye ñun foofu toog ñun góorgóorlu nga ñuy wax. topp leen sama tànk góorgóorlu leen gëm leen seen bopp da leen nangoo leen liggéey da leen sol ay yére yu baax di sol ay yére yu set waaw ma ne yenn chauffeur yi Chris Cross nag vraiment Pape mooy suñu njiit neexut ko waaye ngir yàlla nañ ko ba ngir yàlla man de naa ko bis ni ki tey man nag daan naa ko def waaye banaa man de banaa moom bis ni ki tey dootuma ko def ba ilaa yawmi diini CNG Karang CNG Karang waaw ñu ne sas nañ la ay mayo ay blouson am ngeen ba pare am ngeen ba pare suuka loolu pare na pare na pare na loolu moom wax na yàlla pare na moom waa kon fi mu nekk nii jërëjëf arbitre kooku mooy li nga xamante ni moom mooy euh, monsieur le maire euh. vraiment daar cent mille lañu madame le maire jox waaw suñ mbokk gambien yi aussi jox nañu fukki junne cinquante mille te di ko xeeb lool nag waaye ñun dañ koo ndaw lool vraiment jigéen ñi aussi jigéen ñu kaarang yi yu gaaru ceer yi joxe nañ 17000. waaw bëri na lool vraiment bëri na lool fam jógee yal na yokku yal na yokku ba ngeen yëg ko. non dañ dañ ñoom day dañ wax nañu jégal leen rek woon nañ leen waa ñu ne ñu jégal leen rek waaw. jërëjëf jërëjëf kon euh, loolu mooy li nga xamante ne ni moom mooy euh, li gars yi doon joxe noonu mooy teraanga bi nga xam ne jagloo woon nañ ko gars yi bu ko defee rek ki nga xamante ne moom mooy madame le maire moom moo joxe loolu ñi nga xam ne mooy ñaar fukki junne ki nga xamante ni moom mooy euh, maire Toubacouta ko xam si Pape Dianko moom moo joxe fanweeri junne si enveloppe am kon bu ko defee rek gars yi ñu daal di jàkkaarloog li nga xamante ni encore moom mooy lamb ji lamb ji ñu ngi tirage si li nga xamante ni moom mooy poids lourd gi poids lourd gi lañ jublu loolu bu ko defee rek ñu seetaan si bëre ci kanam ak poids lourd bi yaakaar naa ne lamb ji neex na ba pare ferenkulaayu la ba pare kon jërëjëf gars yi paax ngi xool ñaari mbër yi ñaamaan séeréer ak yàlla kobale ñaamaan séeréer ak yàlla kobale ñaamaan séeréer yàlla ñaamaan séeréer yàlla ko bale arbitre arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi wax na ak ñi nga xam ne ñoom ay sixième yi ñaamaan séeréer yàlla la bale ñu ngi lewaatoo ñu ñaamaan seereer yàlla ko bale yàlla ko bale ñaamaan ko bale séeréer yaa la ko séeréer yaa la ko bale yaa la ko bale séeréer ñu amaan yaa la ko bale ñaamaan séeréer yaa ko bale waaw waaw ak ki nga xamante mooy ñaamaan séeréer mooy deuxième combat poids lourd bi loolu mooy deuxième diggante ñaamaan séeréer ak yaa la ñaaraan séeréer yàlla ko bale albi suuf la na jijeen ñëw dan ñoom ñaar jàppante nañu jàppante nañu ñaamaan séeréer la ko bale jàppante nañu ñu ngi bëre bëre koow ngi bëre bërem ko diggante ñaamaan séeréer ak yàlla ko bale ñaamaan séeréer yàlla ko bale ñaamaan seereer yàlla ko bale ñaamaan seereer mem na mel ni kuy dugub mais yàlla ko bale bañ na yàlla ko bale ñaamaan seereer yàlla ko bale ñaamaan seereer attention yàlla ko bale ñaamaan seereer yàlla ko bale ñaamaan seereer ah yàlla ko bale daan na ñaamaan seereer yàlla ko bale daan na yàlla ko bale noonu daanee nga amaan séeréer. waaw séeréer waaye ko mu ñëw. kooku mooy ki nga xam moom mooy yàlla ko bale yàlla ko bale nag daan nga amaan séeréer jël bu leer kon gaay noonu lay rek nga amaan séeréer ki nga xam ne dafa daanu si poids léger bi ñëw fekk si ki nga xam ne moom mooy yàlla ko wale si poids lourd bi yàlla ko wale daan ko muy deuxième combat boobu kon gars ñu dem seeti beneen combat bi dox si biir. bit baa ngi xool ki nga xamante ne moom mooy Seeku Sum muy troisième combat poids lourd bi Seeku Sum moom ngeen gis noonu waaw ñaari mbëri nag ñu ngi doon xam kam eh, diggante ki nga mooy Lectro ak Fakaaw combat baa ngi dox si diggante Lectro ak Fakaaw muy troisième combat poids lourd bi arbitre baa ngi wax ñaari mbëri loolu mooy troisième combat ngi wax ak ñaari mbëri Lectro ak Fakaaw Lecture ak Fakaaw arbitre baa ngi wax ak ñaari mbëri nag arbitre dana ko ndax pare nga mu ne ko waaw dina wax pare nga mu ne waaw nee na arbitre suuf la na arbitre suuf la na si diggante Lecture ak Pakaaw

Lac Touré ñu ngi damante baaraam ñu ngi damante baaraam diggante Lac ñu ngi damante baaraam ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar muy troisième combat poids lourd mu dox nag si diggante Leeg Touré ak Pakaaw Leeg Touré Pakaaw ku nekk dafagul dara ak Pakaaw Lek lewato bi gaaw na diggante Electric Pakaaw diggante Electric Pakaaw diggante ñu ngi lewato

le tere pakaaw le tere pakaaw ñaari yaa ngi lewaatoo ñaari mbër yaa ngi leewaato jëlal bi mu jeex lecture pakaaw wa waaw waaw Yàlla kan la lecture Pakao ñaari mbër yi kan la Joal ak Bass biñ jógee ci eh, combat lecture ak daal leen jox ki nga xamante ni mooy Joal ak Bass ñu seeti ki nga xam ne Joal ak Bass Joal ak Bass Joal Bass Joal Bass Joal ak Bass Lecture Pakaaw Lecture Pakaaw Lecture Pakaaw Lecture Pakaaw Pakaaw Lektura Pakao Lektura Pakao ah voilà Ngok Ngok Seeku Sum Seeku Sum Sum moo daan noonu feeko summoɗa noon waañi seko seko lebtira bakaw baa gi neex na quatrième combat poids lourd bi boobu mooy quatrième combat poids lourd bi quatrième combat poids lourd bi ñaari mbëri ñemente nañu ñaari mbëri ñamante nañu Thank you. rawatina quatrième combat poids lourd bi quatrième bi takk na ko daan na ko daan na ko jël bu kon jël ki nga xamante ne moom mooy bas. la dama xaasoon la daan ko da ngeen ba pare dafa asone rek daan ko kon noonu lay demee saa su nekk parce que dafa asone daan ko parce que borom doole la waaw. ñu ngi ci combat demi-finale ci diggante ki nga xamante ni moom mooy Yalla Kobale Yalla Kobale ak ki nga xamante moom mooy Less ñu ngi lewaatoo yàlla kabale moo ngem boo ngem bulu ñuul li gaawal na lewaato gaawal na lewaato yàlla ko bale jël na ko yàlla ko bale dugg na ko yàlla ko bale jël na tànk ba yàlla ko bale jël na tànk ba a saay rasu na yàlla ko bale jël na tànk moom rasu yàlla ko bale jël na tànk ba rasu na a combat bi neex na combat bi neex na yàlla ko bale waaw waaw combat bi diggante ñaari mbër yi nag ba léegi ñu si combat demi-finaliste nga xamante ni moom mooy yàlla ko bale yàlla ko bale nag moom moo ñuul li waaw waaw lamb ji na ba léegi ñun si drapeau poids bi diggante ñaari mbër yi ñaari mbëri nag diggante ki nga xam ne mooy jib ñu gën koo xam si la Coubalé ay beneen mbër mi nag dafa mel ni turam dafa ma xaaw a réer mooy bër bi mën a bëre nag moo bëre premier combat bi ki nga xamante ne moom mooy arobas moom moo ko indi ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar ñu lewaatoo lewaatoo bu gaaw na diggante Yalla Kobalé Yalla Kobalé ko Kobalé Yalla ko Baldé daw na jël ko Yalla ko Baldé yaa ngi koy sàcc Balem ak Yalla ko Baldé dem ak yàlla ko bala yàlla ko bale mbalem yàlla ko bale maa ngi am fii ki nga moom mooy waaw. beneen combat bi ngeen gis ko noonu mooy mbalem ak Yalla Kobalé. taxawaay ki nga xam ne moom mooy Fakaaw ak Bas ñaari demi finaliste yi ñoo taxaw noonu ñaari combat demi finaliste yi combat be am nañ fa mbaaleem ak ki nga xam ne mooy Fakaaw mbaaleem ak ki nga xamante ne nii moom mooy yàlla ko bale deuxième combat demi finaliste yi ñu am fi ki nga xam ne mooy Fakaaw ak ki nga xamante mooy Bas. ñaari combat yi nga xam ne mooy demi-finale si poids lourds yi nag fii si arène bu Kaaranga bas daw na jël dugal na loxoom si tànk euh, ngemb ki nga xam ne moom mooy euh, Fakaaw Fakaaw mu ngi arrière bas am na ngemb Fakaaw arbitre atte na ah yàlla ko bale ak yàlla ko bale ak mbaaleem ñaala kobale ak mbaaleem ñaala kobale seen combat bi metti aa ah, diggante Fakaaw ak ki nga xam mooy demi-finale Fakaaw Bass Fakaaw Bass ko bala jël na mbaaleem Yàlla ko bala jël na tànk mbaaleem Yàlla ko bala jël na tànk mbaaleem Yàlla ko bala jël na tànk mbaaleem Yàlla ko bala tànk mbaaleem hop Fakaaw jël na tànk Bass mbaaleem Yàlla ko bala Bass Yàlla ko bala taanu Fakaaw jël na tànk ki nga xam ne mooy bas Fakaaw jël na tànk bas bi Fakaaw ak bas bas

Fakaaw ak Bas muy demi-finale poids lourd Pakaaw nag ni mbagg bi dafa am problème Pakaaw mbagg bi daa am problème Pakaaw mbagg bi daa am problème Pakaaw bas Fakaw Bass Fakaw Bass Fakaw Bass Fakaw jël na tànk Bass Fakaw jël na tànk Bass bi Fakaw jël na tànk Bass bi Fakaw jël na tànk Bass Fakaw jël na tànk Bass Bass daan na Fakaaw Bass daan na Fakaaw na Fakaaw Bass daan na Fakaaw Bass ki nga xam ne mooy way Fakaw non non Fakaw daan naa ko yow gisaanoo jëli bi quoi gisaanoo jëli bi Sané ne daan na Fakaw jël bu leer rey ñu ngi si final final poids poids léger bi bi na si diggante finalu poids leste bi finalu poids leste bi nag ki nga xamante ni moom mooy Sanjaafu Sanjaafu nag mooy finalu ak ki nga xamante ne nii moom mooy Ciss bu Karang ñu gën koo xam si volcan final baa ngi daw si diggante volcan ak Sanjaafu Sanjaafu Volca ñoom ñooy finaalu noonu ñu ngi si finaalu poids léger bi arbitre soufflé na arbitre soufflé na si diggante ñaari mbër yi Sanjaafu ak Volca sañaafu volka sañaafu volka sañaafu volka bi gaaw na seen lewaatoo bi gaaw na diggante volka ak sañaafu diggante Volka ak Sandiafou bi gaaw Volka ak Sandiafou seen lewaato bi gaaw na Volka Sandiafou Volcan Sandiafou Sandiafou nee na tekk taxaw di xaar Volcan loolu mooy finaaru poire leese bi mu doxoon nag si diggante Volcan ak ki nga xamante ne moom mooy Sandiafou Sandiafou ak Volcan Sandiafou Volcan Sandiafou Sandiafou volcan Sandiafou volcan final lañu wax bu poids léger diggante Fandiafu ak Volka Sandiafu nag moom moo nekk ñoom ñaar yëpp kii mu ngi nekk doomu Ndorong séeréer mooy Sandiafu mooy doomu Ndorong séeréer Volka mu ngi nekk doomu Kaarang ñoom ñaari mbër ñooy finalu poids léger ñu ngi bëre bëre suuf Volka ak Sanjaafu ñu ngi bëre bëre suuf ñoo ngi bëre bëre suuf ñu ngi bëre bëre suuf combat bi tàq na suuf combat final bi tàq na suuf suuf la na diggante ki nga xamante ni moom mooy bas ak mbaaleem nag final poids lourd bi la ñu ngi si final poids bi diggante bas ak mbaaleem diggante Bass Mbalem finalu poids lourd bi la ñu nekk noonu ñu si ca pandal gi lu ñëpp doon xaar lu ñëpp doon séntu tey muy ñaar ñaari mbër ñoo war a mën a finalu final poids lourd bi ah ñëw teew si ki nga xamante ne nag. moom mooy bas ak mbaaleen final bi si ñaari mbër yooyu la feeñ diggante bas ak mbaaleen la final bi feeñ bas ak mbaalem si la final bi feeñ final baa ngi dox si diggante ki nga xamante ni moom mooy bas ak mbaalem muy finalu poids lourd bi jàppante nañu ñoom ñaar jàppante nañu ñoom ñaar ah waaye dara demewul tax finalu poids lourd bi buñ annoncé naan finalu poids lourd mu ngi war a doon cent mille yooyu noonu ñu koy séntu tey ñu sentu ko lool ba mu yegsi si ñaari mbër yi ki nga xam ne mooy mooy mbaaleem te arobas indi ko ak ki nga xamante ni moom mooy mbaa kii bas te mu ànd ak waa ñoojoor yi ñëw affaire bi neex na lool ala daw me na diggante bas mbalem jàppante nañu ay waaw animation Ndeye Fatou Ngom Tambour Major Mor Ngom bas jël na tànk ma mbalem mbalem rasuna mbalem bas Mbalem ak Bass Mbalem ak bi diggante ak Bass finalu poids bi Mbalem ak Bass Mbalem Bass final poids lourd Mbalem Bass ak Bass Mbalem Bass Mbalem Bass combat na lool diggante Mbalem ak Mbass jàppante nañu loxo Bass dem na sol Mbalem Mbalem bañ na Mbalem bañ na Bass Bass am na tànk Mbalem Bass am na tànk Mbalem ah bàyyi na ko Bass ak Mbalem Bass a dem Bass a dem Bass am na ngebal Bass. bas am na nga mal mbaaleem bas am na nga ma ah, bas daan bas daan na mbaaleem bas daan na mbaaleem Fass daan na mbaaleem ñaar. waaw bàyyeeguma la de sama mbër. non daane waaje. waaw champion non daane waaje yow. ah lay séeréer lay séeréer ñu ne maa séeréer. non jàmmule o jàppale tam mu yow saa wala peesin. lay lay fa fogale parce que ngor ka xana seetaanu nga yow. non fogale kañu jeekaay la ne lu leen gidma den. gidma den waaw parce que dino supporter ga den taw bo njama waaji akwa dina ka kaali ten. waaw. yaagool foogaame o fog ole ka rang fop a content na wo xaye waaw waaw ke i njegu den nena ref kores naaga yo ah, njum naaga wata waaw loolu mooy li nga xamante ne woon moom moo doxoon si eh, diggante ñaari mbër yooyu mooy Bass ak ki nga xam ne moom mooy mbaaleem nag final bi ferenku laayu seen diggante ñoom ñaar Bass daan ki nga xamante ni moom mooy mbaaleem jël set wecc kon lamb ji na naa ne na si jàmm ubbee nañ ko si jàmm jeexal ko si jàmm suñu télévision nag suñu TV yi woon ak yéen rek doon jël li nga xamante moom mooy làmb ji am na kenn si ñi nga xamante ñoom moo organisé woon làmb ji ñu wax koy wax uh, Ibou Ibrahima Gueye Ibrahima ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi uh, uh, ñu ngi fay. di wax rek naan seen làmb ji tey ndax kontaan ngeen si bu baax a baax sant nañ bu baax a baax a baax. ndax yaakaar waaw commencé nañ ko si bisimilah mu yegg si alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla kontaan nañu baax a baax a baax a baax ndax lii fooguñ ko woon suñu premièrement ñuy tëgg laamu fii si Kaarang ñun waaye garas Kaarang ñun ñun xale yi sax la safóor yi yàlla def na yegg na si jàmm kontaan nañu baax ñuy ñaan yàlla déwén ñu amaat beneen bu dàq bi wax dëgg yàlla moom neex na sant na yàlla bu baax a baax a baax amul benn problème. gis gis nañ combat yu neex gis nañ mbëri wax dëgg yàlla ñu quatre jours yëpp si bëggoon yàlla def na ko. lan ngeen gis nga xamante ne ni mooy seen xaaw faiblesse si biir pour ëllëg ngeen war ko mun a préparer. waaw maanaam commencement bi la moom. Hmm. waaw waaye wax dëgg yàlla sax gisuñu sax benn affaire boo xam ne. moom métti nañu wala xaw nañu naqaritu noonu wax dëgg yàlla. parce que premier jour deuxième troisième ba quatrième. sant yàlla sant yàlla bu baax a baax baax. kon yàlla sant yàlla sant yàlla baax a baax. ñii jàpp nañ nañ wuy si foog ñoo ne sax ñu dañu am lii wax dëgg neex yàlla fooguñu ko woon ndax man mi si ñi ko jiit laa bokk ay xale kese ñun safari ndaw yi dëkk fii Saalum dëkk dëkk fii Ñombaatu ñoo ko doon traité ñaan yàlla déw ñu am beneen bu dàq bi Ah, teg ren 800000 la déwén bëgg nañ def 1 million wala 1 million yu teg incha allah rabbi. jërëjëf yàlla dina leen ko may incha allah te lépp dana jàll si jàmm ak salaam kon bu ko defee loolu mooy li nga xamante ni moo amoon fii si terrain municipal bu Kaarang terrain municipal bu Kaarang nag euh, lamb jooju nga xamante ni suñ mbokk chauffeurs yi ñoom ñoo ko fi organisé woon nag jàll na si jàmm ak salaam di leen di wax rek naan. Euh, suñu télévision suñu TV mu ngi leen di jox dig daje beneen jamono incha allah ñu daal di teewaat ak yéen rek di leen di bégal saa su nekk si li nga xamante ni moom mooy xew-xew yi xew si dëkk bi saa su nekk kenn koo xamante ni amoo moyen pour ñëw rek euh, danañ la indil li nga xamante ni moom mooy programme bi rek jox la ko si sa biir euh, néeg nga toog ko seetaan wala si sa biir saal di leen di jaajëfal bu baax a baax di bëgg si yéen bu baax a baax bëgg bëgg lenn rek euh, loo xamante ni moom moo leen di bëggal rek si loolu la ñuy dox kon bu ko defee rek ñu daal di ki toog yéen ne leen bàyyi bàyyi ba beneen jamono.